Euh, euh, jël mesure matukaay yu mu wax démb euh, ay couvre-feu état d'urgence jàpp nañ ne loolu lu war a am la dañ ko ci war a gunge parce que ci njëlbeen si suñu bopp sax waxoon nañ ne ah affaire yi ñuy yokkoo nii wax confinement war nañ koo xalaat baax a baax bon mais yombul parce que Sénégal ñu ci bari ci ñun dañuy dund au jour le jour donc loolu ak organisation discipline bu mu laaj xamne ni ne ah léegi nak su nekké jël ñu ay matukaay yo xam ñu ngi permettre euh, effectivement ñu jëm ci lolu transport euh, interrégionaux par exemple ak yu ah noonu eh bien dans leen appuyé, appuyer suñu responsabilité Dans les faral di wax né politique amul sens su mënu ñu am lu ñu wax courage patriotique politique amul sens su que mënuñoo am sens de la grandeur waaw

Euh, la presse aussi, évidemment, a un rôle extrêmement important à jouer. Donc, euh, war nañ effectivement ci ci euh, virus bi ko fi lolu en tout cas ñun suñu la président de la république wax ak population sénégalaise mi a discipline luñu téré ñu bayiko suñu autorité, sax ci seen au moins un mètre yu mel noonu ak yeneen euh, yu yooyu Sénégalais dañ ko war def rassemblement et tamit euh, euh, ñun sax jàpp nañ ne même mosquée il faut avoir le courage de le dire jullit laa samay bàyyi ay jullit nañu depuis ay ay ay mille ans au moins kon nak amna sañ-sañ wax ne fu ñu toll nii su nekké jangoro ji day law ci bir juma yi kon julli juma julli ci juma yi ak ak ak jàkk yeeg yooyu mën nañoo xaar un mois ba lii jàll euh, ñu mun cee continuer loolu moom mooy sama cadeau gi euh, di di gërëm ñëpp di sant ñëpp di ñaanal Sénégal nak yalla musal ñu ci ci corona jërëjëf jërëjëf mu do non euh, l'honorable député Mamadou labine Diallo jité itam mouvement bi di teki don joxé xalaatam ci li nga xamni mom la jitt réew mi.